néew kattan bi new kattan. boo doon problème bu bari la. non. waaw même jàmbat rek. mais xam nga euh, mos naa ko wax. Hmm. góor boo xam ne fa fekk mu ngi lekk hamburger wala pizza. Hmm? waaw waaw sëñ bi pizza ak hamburger lu mu lu mu lu mu lu ngóora. lu mu jotee ngóora mooy. Hmm. doomu aadama li muy lekk góor li muy lekk. seetloo benn affaire. Mm. tey jii booy doog a seetu. Mm. wala ku bëgg mu takkale seet wala ngeen say bees. Mm. pourquoi pas jëndoo fonde pourquoi pas cere pourquoi pas ngalax. mais noo def mais noo def. dem jënd sa yàpp bu baax jox ko mu lekk ba suur. naan ko kaa nga jox ko kukaa wala nga jox ko jinjar mu naan. parce que da nga am li nga bëgg. yéen yéen Saalum ngeen déglu fii parce parce que am nga li nga bëgg yow pour mu satisfaire la. moo tax nga choisir yàpp bu baax boo ko jox mu lekk. Ah. moo xam ginaar la wala nangam. parce que li muy lekk day def impact day joxe day day day day day joué ci. après li nga bëgg ci moom. Ah. waaye léegi nag ma yaay Istanbul. Pixar nag ni mu leen ñem noonu ak hamburger noonu la def ci ndigal góor parce que euh, Pixar dafay yokk graisse bi nekk ci ci ci ci ndigg fi sa tubéy fi muy tegee. waaw graisse boobu graisse boobu. yéen a ngi dégg loolu lekk yooyu lekk yooyu da koy da koy yokk. mooy mm-hmm. waral léegi mm-hmm. góor bu mën a gis fi ñu toll nii góor ñu lekk pizza ak hamburger mm-hmm. ku ci mën a def ñaari yoon rapport ci benn digg ak jigéen bëreetul kon kon eh, sëñ maa nekkoon di yàq business su ñuy jaay hamburger yeeg yooyu saa yi na ngeen baaxee ko doomu aadama yi non eh, loolu mooy dëgg kii yooyu mooy dëgg dëgg boo koy wax bul ci seet bul ci seet ko ko yàqal waxas ak xoytan la kon ak pizza dama ne la baaxul ci góor hamburger hmm. pizza hmm. sawarma xeetu lekk yooyu <laughs> du lekk du lekk góor daal. Ah, waaw moo tax jigéen ñëpp ngor leen bàyyi seen néegi sëy laa la wax. Mhm. waaye yàlla xam na ne góor ñi mënut si ñoom dara. maa ne la góor ñi li ñuy lekkee nañ ko seetu. Mhm. nañ ko seetu moo tax nag mu utal leen affaire ngóor bii. waaw léegi bii moom bii bii moom. bii nii. Mm. dafa am liquide bu mu war a àndal. Mhm. moom it président émission dama la ko indil. waaw pat bi dama yàgg a wax ne góor jigéen góor. Mm. li tax muy fonctionner. Mm. dëgg dëgg dëgg mooy awraay góor ñaari yow di la nga ci ronam. la ngay gis góor goo xam ne day dem ba yooyu day bàyyi. Mhm. mu réele ko lool góor goo gis mu réele loolu du fonctionner du fonctionner bu baax. Mhm. léegi nag sat yi waral góor nekk góor dëgg. mooy mais du may du may xuuxaan xaw ma euh, góor sax mën na ko réel fekk xuuxaanut ah. mën na yem rek mais sadit bi fonctionner loolu góor gi dëgg dëgg lépp fa tëdd. Mhm. doo mën a fonctionner normal yéen yooyu nag li ko mën a yee moo tax boo naanee jinjar yu mel noonu nga gis ne eh, eh, doo ko xam yow. mais boo naanee jinjar sadit yooyu mooy yeewu. mooy waral ngay mën a fonctionner léegi tamit nag garab bi boo ko jëfandikoo ak pat boobu nga di ko ci loolu mooy yeew mooy tax nga mën a satisfaire ki nga ki yàlla boolet te ko dëgg yàlla yàgg naa ko wax mm. sëñ bi jigéen ñi seen kër yi seen kër bàyyi